wa baadu fa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi mbokki dëkkandoo yi soppe yi am di jàmm yi gannaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bi sangu-sang yi sallallahu wa sallam ñoo ngi leen di nuyu di wax alhamdulillahi rabbil di sant yàlla sant bu wér kem niñ ko mënee donte ka amul benn jaam bu sant suñu borom ni mu yeeyoo ndax moom kese moo mën a sant boppam cant gi nga xamante nii moom la yeeyoo te sunu sëriñ cheikh seydi alhaaji omar ndaw radiallahu taala anhu moom la wax rabbil alamina ala nasmin ya yawaqiti ya hamidu ci fof la nan ko hamatta nafsaka ya Mahmud munfaridan haqqal mahamid ya hamidu ya allah kon sun borom mom, kese mo mun a sant boppam cant gim yeeyoo ba dem ba cappaa coli gi ki nga xamne ne tabdil tafdil moko mom ni ni ko serigne bi jangale buñ ne baax da nga nan mo bax ñep sell moo gën a sell ñëpp raw moo jiitu ca kanam moom sax ba mu koy cant Cheikh Seydi Alaay Omar dañ ko reeralan ne hamadakal wudd ba saalan bi taaxat yii kem na na cant ñu taxaw foofu ñu nit di sant di sant yàlla suñu borom bu wér ci dogal yi yu neex yu naqar yi di taxaw foofu di ñaanal way jiitu yi sun borom jéggal leen di ñaan sun borom ñi fi des mu yàggal leen ci sant goog ba tey di sant sunuy wayjur ci nit ñu accompagner nit ñuy dimbale ci xalaat ci ndigal lépp lu ñuy def dañuy dem ba ñu ciy bàyyi jiital ñu sax ndax doyloo ñu day da ngay tàggu tàggoo tàggu ba boo demee te mu ne la jaratu ko ñu ngi ciy sant yàlla ci lool di sant yàlla ba tey ci lépp loo xamante ni mu ñu ko defal lu mel ni bés bii bañ ko jàppee yàgg na ndax daaw ci fajar bi ñuy pere fii lañ ko jàpp rek ne 24 la di ko préparé ba léegi mën nañoo wax ne lépp sotti na amuñ ci benn gàllankoor kon loolu sant yàlla bu wér a wér ñu ngi sant ci xol li ci xol yi mënuñ ko tudd ci làmmiñ kon ñu ngi sant ñëpp gis nañ ñëpp di sant mboolem daayira yi fi jaar yëpp zikar yi neex na am na solo yàlla na yàlla wàccee fi barke bi waaxit di ñaan bés bii ni mu tàmbalee mu yegg noonu di amee nag nu raw na daan amee incha allah di ñaanal sëñ bi baat bi wér péng waaye di juutal ci nuyoo yeeg sant yëpp sunu imaam ak borom dëkk bu ko defee comme guddi na ko noppi amul lenn lu ñuy guddal. ni mu daan demee rek lay demee bu ko defee ñu defee ko nañ daan defee incha allah mu dàqati nam daan dàqee kon dañuy jox sunu président muy Muntaxa Njaay mu waroon jël kàddu sant daayiraam waaye mu jël naayibam di Abdou Jaw pour mu uutu ko fa incha allah su ci noppee ñu jox Baay Moodu comme nañ ko daan defee mu dalal ay ganam ak ñëpp jox bayaali bu ko defee jébbal leen kàddu bi ndax guddi na ba noppi amatul lenn luñ ciy def. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. mbokki julli yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoor yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. ñu leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. comme ni ko sëñ Ousmane waxee nii rek. amoon nañ yéene kenn ku ne ñu tudd turam. waaye xam nañ ne temps bi mayeetu ko ndax guddi gi dem na ba noppi te bés de boo xamee ne keroog ba ngeen jullee ca fajar gi ngeen jàpp ne yegsiwaat na yàlla may leen ngeen fekkeewaat ko ñu dolli see sant yàlla ndax ñu ñi fekkee ko defaluñu yàlla lu tax mu bañu fi waaye ñu fàttaliku it ne ñu xuute defuñu yàlla it lu tax mu xuutal leen bés bi waaye li tax danañ fàttaliku li ñuy wuute dafa am loo xam ne lu xaw a yàgg la suñu dëjuwu maam jile moo nga xam ne mooy sumu yaay boroom dëkk bay Seydi Habib yal na yàlla yàggal ko fi lool yokk ak wéram dafa am dénkaane yu ñu joxoon xam naa ne xam na ñoo xam ne fàtt nañ ko waaye ñu koy fàttaliku bi ñuy rawee ba ñëw noonu na nañ da fàttaliku ñetteel kër gu mag gële ndax fàttaliku rek lañ leen desel nañ leen di ko nag waxoon nañu ko keroog boobu ba mu waxee suma papa aale nga ne fàttalikoo na ko fii ma toll nii xam naa ne fàttali na ko nag ndax bokkoon na si ñi nga xamante ni jotoon nañ ak leer ak aal ba wax dëgg yàlla ñu jotoon a daal boobu si jàkk jii la woon comme ni ko kii waxee ñu ñu dolli leen dolli ay ñaan ñaan xalifa al Basir maa ngi mas a dégg waxtaanu alaaji Muntaxa radiyallahu anhu muy wax ne ba nga xamee ne góor ji xuutu na wuute na moom mu wuutu ko si place bi am na luñ ko waxoon noonu nañ ko muntaxaa puso bi dee jox nañ la ko waaye bañ jékkee mu dawal jëmmi jamono ñekko noon puso bi jox nañ la ko taxawaat nañ dëggal ne puso bi réeralut ko waaye soppi na ko ràbbu ba tey ñun ñii nga xamante ni ñun ay ndaw lañ man ñun laa yërëm waaye suñuy waajur wàcc nañ ndax li tax wàcc nañ yow man xiyaam yàlla du leen mbugal si nak ngeen yaree woon seeni i doom ñoom ñi nga xam ne dañoo fekkoon seen bàyyi ànd ak Seydi El Hadji Omar Ndaw ñoom ñu ànd ak njaboot ak Seydi El Hadji Omar Ndaw ci xalifa Muntaxa ak ñi ko féete suuf ba ci baytaar mi fi mujjee dotege ñu dolli ko ñaan yàlla taañu sa barkeem ñooñu kenn du leen laaj man li may sàpp ci sëriñ bi ak mbooleem ñi mu àndal mooy mu ñaanal ñu ñun ba fi suñu papa yi xaw ñun yoon woowu yàlla buñ ma mas a wàcc sëñ bi loolu lañ lay sas ndax suñu avancement ñun gis nañ ko ñun ñëpp li ñu waxoon ci ba ñuy sos daayira bi lépp gis nañ ko groupe lañ daan xamee da ko taal muy dërër yi groupe jeex na fi de leeral nga dëkk bi te nangu naa si barkeb Seydi Laaji Omar Ndaw ni ni mu leeralee dëkk bi leeralee na ko xol yi kër baara xàmmewuñ murit ak tijaan tey bu ngeen aw ah, yi teeloon a ñëw bres jëwri ni murit moo xame woon toog gi tijaan yi ñu dollee ci sant yàlla ñu ngi gëm ne diggante Seex Ahmadou Bamba ak Alaaji Omar Ndaw nañ ko doon doxalee taalibe yi fii moom réeréefuñ ko ñu dolli ci sant yàlla di la ko ñaaxaan nga dool dolli ñu si ñaan loolu gën a dëgër suñ cant ci yow sëriñ bi xam nañ fi mu déparé ndax fi ñu fi ñu jëlee moo ñu gënal fi ñu jëmee yow moo ñu gënal fi ñu jëlee sëñ bi maa nekkoon vice président bi doon organisé soirée tey ma bokk si ñi ti ti fii téerab si Seydi El Hadji Oumar Ndao ba ma tolloo si jàng alxuraan suma papa jàngaloo na ma yàlla dogalul ma xamee ca waaye keroog bañ xumbee téerab Seex Seydi El Hadji Oumar Ndao ci bii dëkk fiñ tol ni señ bi ma sha allah dolli ñaan rek lay ñaan way ma ngi gis suma bop bu baax kan moko def Cheikh Sidi Alaaji Omar Ndaw bés pénc nit danañ ko xamoon dugal ko safara señ bi waaraatee ma way dama ay wax pour gis nga nit bu la maye nga féttile ay mayam wax ko ci karam nit ñi fay tax ñi tol xam sama papa la ko waron def nako jangalo na ma ci oustad bu ndon wax Moussa keur cheikhou bala dalon jangalo ma ci Birame Dabo mu ngi fii ci dëkk bi waaye ñoo ñëpp bañ ma jàngale ba pare ak guddi gi yàlla naa ko yeggalee ci barsaax benn arab laa ca xamal muy waaw suma doomu bàyyi ma ko xamal Seex Tijaan Jaw doomu bayaay wax naa ko fii guddi gi Laylatul Qadr sëñ bi ñun buñ taxaw féddal yéen fi ngeen sëñ bi luñ doon sëñ bi bu xamoon si temps bi suma xol bi moom mën leen koo tasaare wallahi sëñ bi man damay toog maa Aliou Ndao mas na ñoo tase ñoo maak yi ma toog rek dégg maakiroon ci koñ bi rek maay dox dérange mbedd yi rek ba daanu ci kawam comme be dama dem sànke rek benn air rek ñëw rek gañoo ti seet sii bi taayir wallahi sëñ bi nañ tëj nañ tëj buntu boobu ma yeggali ko suma waa daayira bi comme niñ ko daan defee waaye sëñ bi daal ñu ngi lay wax ne ñun waa Caare waa Kër Ma Njaay waa Kër Malick Diaw waa Medina Ndawet waa goox bi xamuñ seen fay waa Kër Seexu waa Dingiraay sëriñ bi secteur bi yëpp ñëw nañ waaye xam nga ñu ne ñii fan ngeen ko mosaloon mu neex sëñ bi doyal duñ de sëñ bi da nga yàgg tasaare man mbiram Seydi Alaaji Mandoor dama ne cin luy baax la amul ruq bu seet gis nga ku bokk ci seet Seydi Alaaji Mandoor lu mu tuuti tuuti tuuti mën na gindi xam na wërngal képp ndax li ko yàlla may bëriwul ni ko may bu kenn nag aalu ba ne li may sama sëriñ may ko keneen loolu ci réer la ndax suñ sëriñ bi suñu yaakaar bi waxoon na ne ku mel ni man buñ ko doon compte baaraam yi du buur kon kooku lu ñuy wax may xam na waaye loo xam-xam may nangu la keneen may sëriñ si nañ ko nangu bàyyi ñes nangul na ko ndax noonu na yàlla bu dee bu dee bu dee jëmm la alaaji xamantaw moom ci dënn bi la jaar may soo si nangul na ko kër diine yëpp nangul nañ ñëpp a ko nangul waaw nga ànd ak koo xam ne ñëpp a ko nangul tey ñi ngay sukkal di leen raamal ñëpp nangul ko xalifa Abdoulaye Niassène ñeseen ba muy wax ne Seydi Bassir tey jii ku ko gis sa yaram xalaat na safara loolu lu wér la ñëpp yëgoon nañ ko suñ président bii mbooloo lu mu bëri bëri bëri engagement xam na waaye tubaab moo ne parmi les engageurs y a les plus engagés li tax moom moo ñëw li leen toon sën yi parce que dëkk bu jaxasoo sën yee ko jaxasoo sëñ bi dañ la koy jox dëkk bu jaxasoo ndaw ñee ko jaxase bu jubit ndaw ñee ko jub ndax sëm yi bu ñu demee takk xaw fi seen ndey seen bàyyi xawoon si yoonu siraatal mustaqiim rek ndax foofu lañu fekk foofu lañu fekkoon seen i maam fekk bi suñuy bàyyi sëñ bi ñun ñii wàcc nañ yow lañ dese de yaa des man de ku ci xaw weneen lu lu ci yow sëñ bi man yow laa koy diggalaat waaye ñii moom suñu waajur ñii gërëm nañ leen fa gërëm xen xam nga sëñ Ousmane nee sant yàlla buñ doon xam kemam mbindeef moo xam ne yàllaa la bind mënoo ma wax kéem ak sant ak yàlla lottu nga ca waaye ñun itam sant suñuy waajur alhamdulilahi rabbil alamin kon ko defee ñu jox leen siyaar di nuyu itam fa nga xam ne fa lañ fayekoo muy ci xalifa ak bay at di leen ñaanal fa nga gudd ak wit yaram di nuyu mboolem ñu ngi fi teew ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla moo ñu mayal ñu toogoon fi daaw kër bii mu may ñu fekkee xar ren ba toog fi ñu ngi koy ñaan ñu fekkee xar ay xar yu bëree bëri bu ko defee nag eh, ñuy sant yàlla wax ji jarul guru guddal ñu tàmbali ñu ngi koy tàmbali ci bisimilahi rahmaani rahim nañ ko xàggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ñaan itam képp koo xam ne ñëw nga fii yàlla nañ bokk gàmm gi ci jàmm ba si teg jàmm kenn fu ne dellu fa nga bàyyeekoo ci jàmm yàlla moo mën loolu yàlla nañu ko yàlla defal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gis nañ mbokk yëpp ñëw nañ kenn ku ne ñëw nga ak sa manin def ko ci gàmmu kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yal na leen yàlla fay ah, ñu ngi wax nag euh, bokki daayira bi gërëm leen sant leen ndax ñoom de ñu xam pas-pas lay man de xam naa si dara ñu xam pas-pas lay ndax mbir mii àgg na foo xam ne man ak ñu jot bu dikkee damay wax ne lii daal xam nu ma demee waaye bu sottee rek mu rafet kon nag jërë ngeen jëf li ngeen nekk am ngeen ci pas-pas bu dëgër boo xam ne man xam naa ci dara ñëpp xam nañ yal na leen yàlla pas-pas boobu yal na ko yàlla yokk yàlla doon leen a dëgëral li ngeen mën ren yal na yàlla may leen ngeen mën déwén lu ko gërëm nañ sant nañ sëñ bi nag ñu duñ ci guddal wax ndax mbaar mu mel ni ak tànt bu mel ni buñ la ko tàntalee nga ñëw ba toog ñu xamatuñ lenn bu ñu wax lu may taataan suñuy nopp ak suñuy xol ngir ñu jëlee fi loo xam ne dañ ku mën a jëriñoo ëllëg àll ren teer bi la lu rek la ñu nekk yàlla na ko yàlla defal yàlla na ko yàlla may ndam ci barke alquran yaakaar bi ñu xam ci yow boo wala nga ñëw fii toog nga def suñu sëriñ def suñu lépp àddina àllaaxira yàlla na ko fi yàlla wan yàlla na ko fi am ndam ñii tam li tax ñu daje fii def ko yàlla ñu ci yàlla wan xewal bu ëpp buñ ko topp allahumma salli ala sayyidina nu sang yi bàyyi ko nga xam ne mooy barab bu tedd ba ñu salaam dëkk suñu wasila Maolana Cheikh Seydi Laaji Omar radiyallaahu anhu ñu ngi leen di siyaara di sàkk ci yéen it ak ñaan ñun de ñoo fi wuutoon suñuy baay ci wàllu taalibe gi yàlla woman ñu dimbale ñu bi dénk ñu ñoo xam ne ñoom taxaw nañ ci suñu ron la xam ne moom lañ doon bi ñu ñëw jël suñuy loxo def mu gën a ko mu gën a neex kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax di ci sant ki nga xam ne moo waral lépp muy Maolana Cheikh Seyda Aliou man mooy koo xam ne ku ànd ak moom ca kanam rek ku kon mbooloo mi fi teewit di bàyyi ko ci yeneen gox yi fasante ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant yàlla xam seen fay yal yàlla fay leen comme ni ko borom dëkk waxee ñëw ngeen ci jàmm ak salaam ba yegg si waaye yàlla ngeen dellu ci jàmm ak salaam ba yegg ci seen i place barke yonent ñu ngi sant sunu borom it mi nga xam ne nii moo ñu mayoon daaw ñu teew fi ñun ñëpp def gàmm gi ba mu jeex ñu ne ñu fi bàyyi yàlla bàyyi ba déwén fas nañ yéen a ngi ñuy ah topp suñu ron sëriñ parce que déglu la nga xam ne nii moom la taataane daaru salaam andi ñu ko ñun nag amatuñu dara liñ ciy wax suñu xol sedd na buy di ñaan daal njabootu si daa ñu mën a nekk yal na yàlla taxawu leen ci saay ci baatin lépp lu leen xéena ndax taal bi moom yéen ak sëriñam rek mooy yëkkati bi dem ca kaw rek jàmm ak salaam rek ak yokkute yéen a jooju nag yàlla mi nga xam ne moo amee dogal yàlla na ko def ci suñuy diggante ak yéen loolu la ñuy ñaan euh, Seydi Moujtaba jig nga dëkk bi ba nga fi duggee ak léegi gis nañ soppeek boo xam ne muy góor muy jigéen kenn ku ne mën nga cee teg sa baaraam te day jëm kanam na fuñ taxaw ren bu déwénee buñ liggéey boo boo ñu fa fekk seet seet doo ñu fa fekk dangay fekk ñu ca kanam te loolu yëpp gannaaw yàlla sa barke maam sa barke baay ak yow ci sa kon jam wax ji jëm du dal ndax su fekkee ni ñëw ngeen toog war a ñëw am lu ngeen ñu indil ñu jël wax ji wax ko benn jaar dootu am sens kon foofu lañ koy ma def ñu ngi ñaan daal déwén yal nañ ko gisee ak ni ñu ko gisee ñii ren